démb la amal janox taskatu xibaar yi di dëggal ne kon tey la gën a bokk ci opposition maanaam ci ku jéggi moom nag mi nga xam ne moo jiite coalition les serviteurs mu ngay xam ne nekkul député ma Mademba nekkul député Massamba député la bu libre bu nga xam ne ni dafay bàyyi xen euh, ci liggéey bi nga xam ne président wala gouvernement bi ñu ngi koy def Pape Djibril ñaaw ñaawlu wàll na it façon ba ñu tëjee l'hôpital Aristide Le Dantec ñoo ànd sa Safietou Ba Ndiaye Déthié fekkiwul nguur gi day des ci kujje politique bi yeesalaat na nag ma ci boobu boobule pàcc waaye nag muy leeral ni ku libre lay doon ci service wu askan wi. ñoom rek lañu ñu fas yéene taxawal du ñu doon bu samba du ñu doon bu demba waaye askanu Sénégal ñoom dinañ xam ne assemblée nationale bii ñu jëm. dinañ fa am ndaw loo xamante ni ak yeneen ndaw yi nga xamante ni yëpp tey jii ñoo bokk kujje politique gi. nga xam tànn nañ ku politique gu Sénégal tànn na ci fukki weer ak juróom-ñett yii ñu toll nekkat wax dëgg yàlla Macky Sall ak gouvernement fukki at yi daal askanu Sénégal daan na ko jox mu yor executif bi yor lu bari ci législatif bi waaye nee nañ ko fukki weer ak juróom-ñett yii dañu la daan jox pour nga saytu waaye léegi dañuy ñëw saytul suñu bopp. coalition les serviteurs ñëwaat na itam ci jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne jàpp na ni sénégalais yaa ngi koy dund te fas yéene rek def ko xeexam ci assemblée nationale la. ñu nekkee di caxat caxatee suuf si loolu moo tax ñun bu ñu eggee assemblée nationale dinañ ànd ku jegi incha allah ñu def benn commission d' enquête parlementaire. sur commission bi nga xamante ni moo yor wàllu domaine. moom Pape Djibril Fall woo itam Sénégal yi ci ñu gunge ko ci projet bi nga xamante ne rek intérêt bi du lenn lu dul njëriñu Sénégal. kàddu Pape Djibril Fall du ma député Mademba du ma député Massamba député bu libre la bu war a bàyyi xel bu baax ci liggéeyu gouvernement bi ba jàngat nga ci def. Euh, euh, jàngatu am na liberté def ko. ci xemem teefu boppam la xalaati taxawul mouvement. ci mën-mënu boppam ak i pexeem la demee ci élection ñi ko wóolu ci askan wi jox ko seen ay kàddu am na sañ-sañu ni askan woowu muy yónni ñoom lay teewal à l' assemblée nationale bu ma gisee lu jar ma waaw ma ni waaw bu ma gisee lu jar ma ni déet ma ni déet politique émotionnelle baaxul li mu def ni c'est un bon choix à l' assemblée nationale xam nga bañ pour bañ rek amul sens nangu pour nangu rek amul sens mm-hmm. da ngay bañ ci loo xam ne jar na bañ boo génnee wax ko publiquement et puis comme moom député askan bi la xam na ko déjà juddoowul Ndakaaru ñu ngi koy interpellé en tant que député muy dem ci àll bi muy dem ci tool yi dem au fond des choses dem dëggantaan ci tool yi gis baykat bii xëy tool yéeg fasam situation gàllem avant muy dem tool su wàccaatee li muy fekk gàlleem dem kooku dem tool noonu nan lay demee hôpital nan lay demee marché nappkat yi nga xam ni tey ñoo gën a souffrir dañuy joytu mbay mi mais napp mais gën a sonn Pape Djibril mi député peuple bi mais am na askan am am na am na liggéey am na liggéey bu mag a mag a mag ñu ngi koy yaakaar nag di xaar ci ni dina jëfandikoo carburant bi ñu ko jox. ci dem ci askan wi. pour yóbbu leen seen joytu. parce que kat député yi ma gisoon ñuy dëkk ci gox goxaat yi dem à l'Assemblée nationale pratiquement ñu askan bi njëriñ. Hmm. joytu ñu lu jógee ci askan ba xanaa ni man la député Macky Sall Ah, mais loolu loolu loolu njombe la wala député diw njombe la te ay junni nit fal la yabal la à l'Assemblée nationale nga ni man lu ñu ma indil bu fekkee ci nguur gi la jóge du ma seetlu dama ñëw rek voté hmm. mais yow yow dañ la wax di reeteet man de député bu ko fi defati dañ lay reeteet dinaa la singali reeteet la alors Mamadou Fofana mu mel ni kon pencum ndaw réew ma nouvelle génération rupture la ñu woote euh, kii nga xam ne moom moo di euh, Pape Djibril Fall nee na député du peuple la a lay doon euh, Guy Marius Sagna moom sax nee nañ ko woowee ak surga man ay discours gaw ma su ma la waxee dëgg gaw ma discours Guy Marius Sagna nañ ma woowee mbindaan nañ ma woowee surga bu ko neexee man nit dama lay natt ak di la kii ca la ngay jëf waxu politique waxu politiciens yi ñoom ñëpp no mais dañuy wax dëgg non mais moom gii moom gii xotti nañu bubbam xëpp nañu ko suuf asib nañu ko tëj nañu ko ndax askan bi. waaw d'accord ñàkk na liggéeyam ndax askan bi. d'accord d'accord El Hadj loolu def na ko. ça vraiment c'est quelque chose. non non non mais mais mais mais il a prouvé déjà. sérieusement non mais sérieusement muy nekk député ak Guy député. loolu danga koy danga koy xayma da nga koy comparer da nga koy def da ngay def comparaison après. Guy qu'est-ce qui s'est passé Guy lan la c'est pas un agent de santé fan lay liggéey ci ministère de la santé bàyyiwul liggéeyam di nekk ci ay ne coono askan wi lay dem taxaw ah si tout le monde faisait comme lui est-ce que tey système sanitaire Sénégal dina dox affecté nañ ko mu bañ loolu noonu di fayeeku weer toog jàpp ñàmbra te ànduma ak yow de non waaw xaaral rek élage ba léegi après nga argumenté man damay argumenté après nga argumenté ñu pare ci loolu nangul nañ ko soit la mu def ko dem ne damay xeexal askan wi loolu am na ci droit nangul nañ ko ko alhamdulilah loolu kay ñun ñëpp loolu lañ bëgg ñun ñii di wax nii xeexal askan wi ak teewal fi askan wi loolu la ñuy wax. avec la manière. avec la manière munoo nekk employé état du Sénégal ñu affecté la nga ko fa. dem ne man maa ngi dem def li mais démissionné. démissionné waaw voilà man loolu démarche bi laay wax da ngay démissionné nga ne man kat lii laa opté nga dem defi loolu mais boobu teewut danga bàyyi sa liggéey ñëw toog Dakar di fayeeku ni taxaw ku xewle nga ñëw taxaw. ñu jàpp ne ne membre société civile nga parce que nee nga kat boo ko benn parti defoo dara mais dañoo xëy guy balancé ñu euh, communiqué nañu lan léegi Pastef laa bokk candidat laa ci législative bi. dugg waaw. avant loolu sax mais cohérence pour cohérence mënoo ne société civile nga bokk askan wi ngay xeexal ba pare nga wëlbati ko rek xëy génn benn communiqué na man parce que laa bokk démarche bi moo doon tey ñaata tey société civile mën nga ko nekk dugg euh, fi nga xam ne moom mooy assu euh, kii na na tuddati assemblée nationale tey bu woote woon liste boppam indépendant day dem dañ koy votel parce taxawaay bi nga xam ne am na ko ci askan donc moo tax ma ne la bien sûr ak keneen ak keneen léegi nag bu ko neexee moom mu wax loolu mais man la ma koy xaar mooy mu jëfee ko mais ce discours populisme way woowa leen ma diw wala député askan wi laa doon ñaata nit a ko fi wax après fan nañ mujj ndax am nga yaakaar ci quatorzième législative bi ak profil yi nga xam ne moom nga gis ak discours yi ñu tàmbalee dégg ñi non euh, moi je ne me base pas sur les discours mais sur les faits faits yi mooy lan ku nekk boo demee assemblée nationale na nga sol mbubu député du peuple c'est pas que damay doon député du peuple wala dama ko doon nekk doon xeexal askan wi mais na nga ko doon ca assemblée pas pour benn groupe wala yu mel noonu il ne s'agit pas de d'aller vers l'émotion euh, ne ni nii laay doxalee euh, jàppaleen ma mbindaan wala jànq wala lu mu mën a doon mais jàppaleen ma député du peuple boo demee assemblée nationale en tant que député il ne s'agit pas nga ne Mansour Diop dafa yore société dàq Mambay dàq euh, Mamadou Fofana nga ñëw dal ci kaw Mansour te defoo enquête yow en tant que député pour xam est-ce que Mansour a eu raison ou a eu tort est-ce que y a eu euh, lu ñu koy woowee ci euh, lu ñu mën a reprocher ñooñu ñu dàq il s'agit ñëw jàppale benn euh, askan wala benn nu ñu koy woowee ci benn village ci benn problème yëkkati émotion il ne s'agira plus ci la ngay wax ca assemblée nga ci jiital émotion xam nga la ngay jiital lii ndax yoon la lii ndax du yoon yéen ñi nga xamee ni dañ leen tuumaal ci nangam man en tant que député mais les questions yi nga xame ni ku ci mel ni euh, waayu tekki bi euh, moom Lamine jàll doon na ko posé mais ay question la c'est des questions mm-hmm. d'actualité ay question jagleel ko waa assemblée nationale bureau beeg président assemblée nationale pour ñu mën a interpeller ñi di gouvernement bi sur euh, lenn li nga xame ne laaj nañ ko na pouvoir bu nekk def liggéeyam ñi bokk ci pouvoir yooyu ku ci nekk def sa liggéey pouvoir exécutif kan moo koy saytu pour député wala assemblée nationale mais le contrôle de l'action du gouvernement donc de l'exécutif mën ko jox yenn saay ay jumtuwaay yu mu mën a yu mu mën a liggéeyee pour le bien des populations et pour le bien de ce pays man maay voté ay loi en tant que député muy pouvoir législatif pour mën la jox yow exécutif sañ-sañu mën a dem wuti yi bu fekkee ne da nga war a wuti wala mën a seet nañuy sayto bu ci ci mel ni les ressources naturelles yi nga xamee ne euh, askan bi ñoom ñoo ko moom ñu war ko xool mais le pouvoir législatif tous les députés qu'ils soient du PDS du de de PASTEF de euh, Benno Bokk Yaakaar la wara doon seen taxawaay ci assemblée nationale boobu ba léegi nag gisaguñu ko ci ay législature yu yàgg on le voyait mais il fut euh, depuis un certain temps ba ñu politiser un peu trop la chose c'est un un un cercle politique mais bu ñu jëlee mbir yi naan ay maam député ab Ablaye Wade wala député Macky Sall ci la lu bari soppeeku qui soit ñoom ñëpp des députés du peuple ku ci nekk dafa am département bu la fal ku ci nekk am na foo xamee ne ñoom ñoo la fal pour loolu waaye boo xësi ba àgg foofu certes dinga xeexal sa département waxal ko loo xamee ne dana jëm jëmale kanam sa sa département bi la fal mais di nga xeexal askan wi yëpp sans exclusive c'est-à-dire moi militant de Benno yow député de de de de du parti démocratique sénégalais wala bu Pastef war nga ma mën a xeexal man militant wu Benno wala man militant wu Pastef ci loo xamee ni askan wi la soxal. c'est sur les actes seulement. jaajëf dañoo gis ne kon yenn ci ay activités euh, door na euh, yenn ci ay services door nañ seen i activités am na si yoo xam ne nag dooraguñu ndax dañuy xaar euh, prise de fonction yu chef de service yi nga xam ne installé guñu leen définitivement tëj tëpp hôpital Le Dantec nag tax na foofee waaye tawat yi gën a bari sa dalal jàmm ñu ànd ak Abdou Aziz Sow Dabax et la yenn ci service dante yi ñu indiwaat leen fii ci dalal jàmm yenn yi sax door nañu seenub liggéey lu mel ni service oncopédiatrie bile. ñoom bu ñëwee fekk nañ huit lal yéen ba di leen xaar. médecin dante yi moom moo ñaari oncologue yi ñoom ñëw nañ. dalal nañu wax dëgg yàlla leen rek mooy problème bi mooy jàkk ñàkk ay ventilo ak moustiquaire ak lekk bi. dañuy mélanger équipe yi. ñaari infirmière yi nekkoon onco dante ak ñaari infirmière nekk fii comme ça mooy nekkoon onco mun aussi former équipe paramédicale bu pédiatrie bu Dantec ñu ngi fii volontairement ndax kenn si ñoom jotagul kayit ni fii nga war a liggéeyee. équipe bi nekkoon fi kese mënul gérer malade yi yëpp. ñu ngi ñaan vraiment infirmier ñoom maintenir leen fii ci euh, centre pédiatrie bi daal jàmm. muy chirurgie benn wàll ci orthopédie ak labo yi yi les services installé guñu leen naam sax yenn ci seen jumtukaay teew nañu. ñu ngi xaar chef de service bi mu ñëw installé ak moom parce que mënuñu jël ay bagage rek ñun installé installé ko fu ñu neex. ak tëjug hôpital de Dantec lim bi fajoo fii ca dalal jàmm yokku lool. xëj na site yi ñu redéployé seen yenn activités yi. Euh, sori na leen ba nga xam ne tey préféré nañu ñëw dalal jàmm. hôpital bile dalal lu ëpp ci service su la Dantec seenub installation ñu ko koy def ndànk-ndànk. ayca mu ngoog euh, euh, El Hadj sànq maa la koy wax redéploiement bi coow mu ngi ciy am ba léegi sa redéploiement service yu hôpital euh, Le Dantec ñu bëri dañoo jàpp ne personnel administratif bi coow dana ci am ndax foo yóbbu comptable fekk fekk nga fa comptable bu fa toog ba noppi est-ce que ñoom dañuy toog seen këram déet. <laughs> ah mais comme seen kilifa démb ci suñuy antenne nee na kenn ku nekk daa ñu la teg fi ñu la war a teg. notifié la ko. ci yéen ci service d'entretien yi. loolu mun na dal xel. Mhm. parce que retard bi am na ba noppi. te wolof nee na bu ndox tuuroo an mbaq des. ñenn ñi ni wala rootiwaat. Mhm. ñu ngi si yoon bi retard am na ba noppi mais comme fi ñu commencé yóbbu ay nit euh, mel ni dalal jàmm am na service yu commencé fonctionnel mais <laughs> mënu ci dara ñi nga xam ne ay comptable lañu ak ñi nekk ci yeneen liggéey comme famille nettoyé ak yooyu xëy na. xëy na daañu leen daañu leen jël en charge. Mm-hmm. en attendant ñuy xaar ñu notifier leen euh, lan la ñu war a liggéey ak fan la leen di orienté maam li ma wax démb mooy lii yeex yeex na ba noppi lii am am na ba noppi faaw ñu doon dem la Dantec daañu jéem a taqale parce que nguur gi jël mm-hmm. décision boo xam ne xaaru ci xalaatu kenn wala conseiller kenn li des jamono ji mooy xool évolution wu ñooñu ñu yóbbu mel nii fii ay fan yu néew. dootuñu la permettre yow presque nga dugg en gare des pèlerins mm-hmm. parce que bëgguñu la nekk ci ay couac génn ci kanam tuuti du ñu nangu nga dem ci yenn hôpitaux yi ñu yi ñu transféré seen services yooyu mm-hmm. parce que du nangu la fa nekk di génn parce que mënul fexe ba du am ay couac loolu force la parce que dafa yeex déjà démb lañu soog a commencé communication bu am solo di def di def ay communication ci rajo yi démb lañu ko soog commencé. démb lañu soog a commencé di orienter nit yi ba noppi am na ñoo xam ne waxaguñu leen lu leer dañuy xaar kon notification ci aw kayit mais maam ñu gën a bàyyiwaat xel surtout ñun la presse ak les députés ak Sénégalais bi lambda nga xam ne am na sañ-sañ boobu dem di xool chantier yooyu kañ la koy daaneel ban société koy daaneel kañ la koy tabax ban société koy tabax. nan la koy tabaxe ban hôpital lañ fay tabax day mel ni ba fa nekkoon wala daf koy gën euh, diire bi itam ñaata temps lay doon parce que gis nga dañu am ak affaire ñoo xamante ni bii bu ñu fëggee fëggaat nga ni pat dañuy dajji bunt. Mm-hmm. te fëgg fëggaat nga ni pat wàññeeku moo ci jaadu mais ñoom dañuy fëgg fëggaat ba noppi dajji bunt mooy gis nga boo sàgganee fii hôpital la Dantec bala moo dem ba fonctionnelaat fii fii laa la wax nii. Mm-hmm. yàlla bu liggéeykatu Dantec mujj mel ni liggéeykatu science science yeeg ama Sénégal yi. loolu laay tiit dama ni leen. Euh, maa ngi xaar xoolal nañu xaar ba hôpital bi noppi mën dama xam nguuru Sénégal ni muy doxee ay waay waay rusloo leen ma bokk waxoon nañu fi euh, autosuffisance alimentaire mën leen du am autosuffisance en riz mën leen du am dañuy wàññi dund gi mën leen du am. waay waaye bi yoon nag rusloo leen ma. Euh, euh. hôpital bi kañ lay noppi. def leen ko ni seen stade bi bokk ndax yàlla. yàlla baax yàlla baax na redéploiement bu euh, service yi ba léegi mën nañu wax ne cette fois ci moom quoi yi bari na. maam c'est que dans le Dantec dafa am ñaari ñaari fànn yu ma ci retenir dafa am manque d'information am lacune ci wàllug information jóge ci. ministère de la santé ak ay démembrement am ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu euh, defaraat yeesal hôpital euh, toxal nu ñeeg yooyu mais en face de manque d'information ak lacune d'information mu am désinformation ak manipulation dans cette histoire de l'hôpital Aristide Le Dantec bari na manipulation bari na désinformation également ma Mame Mbaye tu es journaliste euh, tey ba ñuy toxal Sen TV Zik FM Medina indi ko fii ci euh, ci ci VDN bi xam luñ la wax dañuy toxu mm-hmm. sa yoon new ci micro bi ñuy yóbbu mm-hmm. sa yoon nekku ci taable bi ñuy yóbbu sa yoon nekku ci écran bi ñuy yóbbu xam lu ci sa yoon yow da nga daan liggéeyee fee dugg sa oto ñëw liggéey si fii ana so yoon ci micro bu micro yi boo ñëwee fii micro yi baaxul est-ce que da ngay taxaw manifester ko wala nga ne dangay ngay marche sa yoon newu ci yow liggéey leen la sant médecin bi est-ce que tu as entendu les médecins parler de cet hôpital bari na ay coow entre des professeurs ñii ne lii ñële lële mais seen coow yëpp xam nga lan la du coowal ay suuf seeg loolu de euh, Mambay aujourd'hui li nekk objectif partout dans le monde partout là dans le monde en matière de santé xam nga mooy lan les services de santé puissent être proches des populations. Euh, am na ku ma signaler démb déggante hôpital principal bu Dakar ak hôpital Aristide Le Dantec seen distance c'est 500 mètres. wax naa ko fii sur le plateau da ngay jógee géejawaay bi jege bu Fofana bi nga am urgence. ñu ne nga war a dem mais xoolal yoon bi nga jëm pour dem Dantec ça te prendra combien de temps te pourtant da ngay romb dalal jàmm aujourd'hui lii intéret wu mbirum hôpital man am na ñoo xam ne réhabilitation bi ñuy wax mais bu doon ñenn ñi dañuy dindi foofu hôpital bi yóbbu ko feneen parce que foofu de place am et l'origine et l'histoire de l'hôpital central de Dakar nu ñu ko doon wooyee di hôpital Aristide Le Dantec nekkul woon ay question wu faj ay parce que médecine bi moderne la wala lu baax la xam nga lan la woon pour yóbbu fa ñun nit ñu ñuul ñi ci jamonoy colon yéen ñi nga xam non non pas doole yéen nit ñu ñuul ñi yéen ñi nga xamee ne waruñu bokk ñun tubaab yi ak yéen hôpital ñoom ñu moom principal yéen nit ñu ñuul ñi indigènes yi indigents yi ñi am ay peste ay variole ñu sànni leen fële ca booru géej ga muy hôpital Aristide Le Dantec bii ñuy wax muy hôpital euh, euh, bi nga xam ne moom lañu ñuy toxal loolu même mais c'est même aujourd'hui une insulte pour ñenn ñi de garder cet hôpital foofu mu ne wala ñu tuddee ko nu mu mën a doon c'est une insulte ñu bàyyi ko fokk colon bi yóbbu woon parce que colon bi def ñu ko defoon pour sànni ñu ñun ni ñu ñuul et ça c'est dans l'histoire donc ñu wax ñun li ñu soxal mooy euh, man mi feebar mën a gis docteur fu ma jege su ma amee urgence mën a dem fu ma jege te am toutes les commodités waaye parce que mu ngi euh, il faut arrêter. ñu waxtaanee kon Mame Gor Diazaka nee na candidat la ci élection au conseil collectivité territoriale euh, candidat bu Benno Bokk Yaakaar bu département bu Tëngéej li ko tax a jóg nag nee nañu du lenn lu dul moom ci ay kàddoom ngir gën a teewal artistes musiciens yi foofee na dañu ko yittewoo nécessité la démb la woote janox taskatu xibaar yi Mame Gor Diazaka ay kàddoom. tey jii war naa mën a nekk candidat bi nga xam ni mooy représenté aar bi ci département ci biir au conseil bi. les artistes quoi boo xoolee même les les artistes au Sénégal ñoo sonn dañu war a am ku leen di représenté. ay nit yoo xam ne kenn xamu leen ñu jox leen parole man mii sax xamu leen ñuy wax ñu ne maam góor lu wax parce que xam nañ ni su ma waxee li may wax ñoom bu leen arrangé ñoom leader yi li ñu bëgg mooy. ñëw di nax président wax ak moom pour mu def leen DG ñii mu def leen ay ministre ñii mu def leen lii dëkk bi di taa xale yi liggéey ñu buy taw ñu taw teg waa Tëngéej buy naaj ñu naaj ak waa Tëngéej bu ñuy dee deewandook ñoom ñi nga xam ne nag peut-être clientèle politique la ñu wut ak ay post nominatif ñooñu bu leen neexee mën leen taxaw di nax président président nag mooy bëgg mu profité ci occasion bi mu xam ni affaire bi léegi dafa changé ayca ñu waxtaanee kon wàllum euh, OGM yi ci wàllum euh, mbay mi fii.